naan bikum benn doomu aadama ñaar ñett fukki doomu aadama ak juróom ñett ñoo ñàkk seen bakkan ginnaaw bu seen gaal gi suuxee ca wakaam allah te mooy yéen kaay ñu ko xamal barsa mbaa barsàq fa xam gaal gu yoon ay sénégalais ba fees del ñu ne fañ doon dem bitim réew Europe Espagne waaye ba ñuy tolloo ak waaxi wakaam ya ca palaasu wakaam ba fa la gaal ga suuxee yow fa ngay xool dimanche ci guddi jàpp altine 23 juillet musiba naaru laay bii am la ko sooke nag mooy jannaxoo yooxoo jaxasoo ca biir gaal ga ca ña fa nekkoon ña nga xam ne fa ñoo lab mënuñu woon féey bi gaal gi suuxee ña ca faatu xam na ca ñu dëkk yëmbal pikin tuubaa mbuur caaroy njiitëram Macky Sall xam naqar ak tiis ci li ni mel si du quotidien ne la am wakaam kay fa métti ndeysaan ndax ña ngay kontu seeni niiw te bu yàggu dara diwaanu ndar xam na gaal gu fa suuxoon lu ëpp ñaar fukki doomu aadama faatu ca ñu ne déetewaay wakaam démb fukki doomu aadama juróom-ñett faatu ca enquête yéen a kaay na ko faala ci yokkal ñetti doomu aadama yoo xam ne ñoom mucc nañ ak bakkan génn nañ ci géej ga ña nekkoon ca gaal ga nag ña ngay wax juróom fukki doomu aadama lañ woon am ñuy wax juróom benn fukki doomu aadama ba tax yéene kaay bi ne musiba bii fa hëpp fa métti fa jéggi dayoo yaaw seetal enquête bu njëkk bi fa ñoo wax ne gaal ga daal nekkutoon gaal gu mën a dem Espagne capitaine ba nag fa doon daw ngir rëcc takk der yi ci géej gi ba ñu leen a jàpp ay témoin ñoo ko wax la mu wax nag moom jëwriñ ji ñu dénk wàllu biir réew mi Antoine Diome moo ne lii fa métti ba jéggi dayoo suñu doomu réew di faatu di lap ci géej gi ci xanam gu bari le quotidien yéene kaay na ko li faatu fi mu toon nii wakaam fa jégg daya wàgg ya ñooy génnee niw yi rek ca place ba jëwriñ ji ñu dénk wàllu biir réew mi ne fa ñuy wër nag lukkat napp jàpp ñi nga xam ne ñooy jël ndaw ñi di leen dugal ci gaal yi yóbbu bitim réew réew mi yéene kaay mel ni ku naan lii kay fañ cee war a jël pexe ndax ay ndaw ñoo xam ne ñoo nekk yaakaaru réew mi ëllëg fi mu ñooy dee ci géej gi comme ay weñ rek bés bi yéene kaay na ko faa lañ ci yokkal xam na gaal goo xam ne téeméeri la def fi mu toll a nii gisuñu leen kenn ci waajuru xale ya dem ci géej ga te am fukki at ak juróom-ñett waajuram nee na man sama doom yëgalut ma sax na fay dem ci géej gi ay hélicoptère espagnol tubaab ya ñu ngay wër ca biir géej ga te ba léegi gisuñu dara ba tax info yéen a kaay ne li am wakaam moom fa métti ñaaw ba jéggi dayoo yaw fa ngay xool trois heures di matin ci la gaar gi suux ma nga bàyyee bàyyeekoo woon caaroy jaar yaraax këppoo ca waaxi wakaam ya ca kanam jumaa divinité ba Thierno Alassane Sall ne nañ waxante dëgg wàllu politique doxalinu koom bu réewum Sénégal bu métti ci ndaw ñi ñuy bàyyi seen réew ngir dem bitim réew uti lu ñu am bugaan géy dani na ko hëy faa bëgg nga jaar ci digg bi toj yax bi wax wax ji mu jeex amul wiiri wiiri liy dëgg mooy ñàkk gu métti ndóol gu métti bi am réewum Sénégal moo tax ndaw ñi di dem ci géej gi ngir dem Espagne uti lu ñu am te li ci garaaw nag mooy jamono jooju seen réew Sénégal gii ndaw ñi di bàyyeekoo xam na fi yoo xamante ne mi ngi ci suñ suuf si buñ ko jëfandikoo woon nam waree kon ndaw ñi duñ dem bitim réew yaaw fa ngay xool dix-neuf mille deux cent kilogrammes ci wàllu or sulli nañ ko suñ suuf sa nekk Kédougou si xam na or xam na zircon am na phosphate ak yeneen terewut bokk nañ ci réew yi gën ndóol ci àdduna bi Bougane Gueye Dany fa koo ñaawlu turbine yéen kaay ne 332 doomu aadama faatu nañ ci ndox mi diggante Dakar Ndar Kafountine foog ngeen ne loolu jàmm la léegi si ko yéen kaay na ko du jàmm de waaye bu mujj bii mooy la am wakaam ba léegi dara leerut ci ñaata doomu aadama ñoo nekkoon ci gaal ga l'observateur na ko faa la koy wax juróom fukki doomu aadama lañu woon mboora lañ déparé te li nekk ci biir yëpp <laughs> lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne diiwaanu Ndakaaru mbënd ma taw ba ndox ma mbedd ya kër ya foo ko natt weesu na ko source ay yéen kaay ñu ko xamal ah, fa ngay xool yàlla ji fa taw ndakaaru jamono ji nag Parcelles Assainies ay Kër Massar mbënd maa ngi fa fees dell li fees dell ci ay candidat ñu bëgg a jiite réew mi bokk na ca ñoom ay soxna laas yéene kaay ne faa bëgg nga xool ay dëmbooj nee na fay laaj réew mi Mimi Touré Assome Diatta ak Anta Babacar Ngom te mooy yéene kaay ne ko Mimi Touré moom joxe na programme am juróom-ñeenti point ngir buñ ko falee nim nar a suqalee Sénégal ña seen candidat leeragut ba léegi nag mooy waa benn bokk yaakaar yi APR moo tax Ousmane Noël Dieng responsable politique dëgg ak responsable yi nga xam ne xamuñ benn baas xamuñ mbooloo bëgg a foxantoo nit ñi moo tax fa wax ak njiitaram Macky Sall mu soppi doxalin ak candidat bi ñu xaar bi war a jiite benn bokk yaakaar wax na ca xalaatam Dakar presse yéen kaay ñu ko xamal la xamal moom wala fajir yéen mooy yéex a wax bi njiitaram Macky Sall yéex wax ne du def ñetteelu mandat lim jur ci ay dégâts pagaay fa ñu koo yeggee source ay yéen kaay fa ñoo yeggee ne Ousmane Sonko takk der mu génn takk deree dem nañ fi mu toll nii kenn nekkatu fa le quotidien yéen kaay génn dem fu ko neex ci Sénégal kenn aaye tut ko ko source a yéen kaay na ñenn ci Sénégal yi nga xam ne fu ñu bëgg Ousmane Sonko ñoom ba dof démb bi ñu dindee barrières yi fañ faa dem naan ña ngay siyaare jeeg ak yeneen yu ma la mënta wax libération na Ousmane Sonko nag moo tax fa leen wax ñoom ñëpp dem leen ñibbi bu kenn ñëw sama kër ndax lii du événement fañ maa jaayoon doole tere maa génn génn nañ ca jaay doole ga loolu jarut ngeen di fi ñëw wala express daal bind la mu bind moom le quotidien yéen e kaay mooy gerewu tataa yi démb la commencé waaye fi mu toll ni askan wi doon dugg ci oto tataa yi doon liggéey ji ak doxi seen soxla fi mu toll fa ñoo jaaxle de sonn loolu lañ def ku nar a sonn ba jéggi dayo mooy benn moodu moodu sénégalais bu nekk Italie xam ngeen lu mu defam fa xam benn animatrice ku nekk ca télé yaak rajo ya siiw lool Italie ñëpp ko xam ab soxna la léegi moodu moodu sénégalais bi am ñaar fukkat ak ñaar fa jàpp weenam ya doon ko làmbaatu tubaabee ne ko moo ko xamal waa ma ne ndeysaan man de faa la yërëm suñ mbokk moodu moodu